mi ga mi sami c'est Rita Paradis Massay Balago Farmanen qui est là parmi nous tey nag damay wax ak sama mbokku jigéen yi nga xamante ne nii dañu nekk ak seen copain wala ñu nekk ak seen jëkkër affaire yi neex rek ñu daal di jël seen téléphone di filmer seeni awra te nee naa la loolu rafetul ndax téléphone dafa nekk lu sophistiqué loo xamante ne boo defee sa sa vidéo ba pare rek boo ko supprimer wul rek mun na dugg ci group wala mu dugg YouTube wala mu dugg rek ci Facebook rek ngay di regretter te nee jigéen lu yàq dërëm dafa yomb te nee naa la nit ñi lu bon la gën a mën a partager que lu baax kon di ci bàyyi xel rek di def ndànk te xam naka la ñuy doxalee ci àddina ndax dañu nekk ci benn monde boo xamante ne nii fesal lu bon la ñu gën a mën a euh, def que fesal lu baax kon bu ngeen nekkatee ak seen jëkkër yi wala ngeen nekk ak seen copain rek affaire yi neex rek bu mu neex a neex a neex ba ngeen jël seen i awra rek di ko filme ak di ko vidéo ndax nee naa la boo ko defee rek yaa ngi ci erreur ndax boo ko defee ba pare te dindi woo ko rek da ngay jékki saa rek ba gis ko ci groupe yi wala nga daal di koy gis YouTube wala nga gis ko Facebook te nee naa la loo fa xas ba dugal jeex na ay à suivre la yoo xamante ne ba ba sa doom yi di màgg ba nekk ay sët rek dafay daal di nekk te nee naa la dara du ko dindi bu ko defee yow da dem ba màgget rek wala nga daal di dem ba faatu rek sa doom yi nekk fi di am problème parce que dañu leen koy xoolee ak di leen ko xasee rek ak di leen ko reetaanee rek te amul benn importance kon nee naa la jigéen da nga war a xool ni ngay doxalee ci àddina ndax dañu nekk ci benn société boo xamante ne nit ñi ñu fesal lu bon dañu gën a mën ko fesal lu baax kon boo nekkatee ki nga bëgg mu bëgg la rek de def ndànk ci àddina rek bañ bi ëppal ndax nee naa la lu ëpp baaxul kon sama gars yi tey sama vidéo ci loolu la doon wax maa ngi ñaan nag bu fekkee kàddu yi dafa ñaaw rek maa ngi leen di jéggalu yéen ñëpp waaye dama doon rek joxe benn conseil boo xamante ne rek c'est pour toutes les femmes kon maa ngi remercier ñëpp I love you so much thank you